téléphone 77 712 44 71 ci ñu bëgg a jokkoog daara ji rawatina ñi bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg am ay leeral ndax njàng mi tàpp tàmbale na incha allah te ñu fas yéene andil ma bu amati solo te mooy wéyale li ñu tàmbali woon fan yi ci diggante sëriñ si ak taalibe yi te fan yi ñu indi ci waxi Cheikhul Xadim muy yeete yu ama am solo yu leer nañ yoo xam ne ne dara lu lënt ak lu lëndam nekku ci waaye tey ñu indi waxi kenn ci jàmbaaram yi nga xam ne ni moom la ko sun borom fayee muy Serigne bay Jaxate mu wax ñu wax joo xam ne nii mm, dafay ab yóbbalub si la maanaam nit ki fi muy e, fi muy fi muy déparé ba fi muy àggee si incha allahu ak danga ciy déggee na itam ndeke mbooloo mi jëruñoo wettali ko kenn ku nekk la lay wettale mooy say jëf Sëñ Mbaye Jaxate dafa waxoon ne sóobul ngirum àjjanay waaxoo ko lagg ka daw ba tàbbi àjjana biir ak biti door a taxaw loo man di dégg ko gis yow ci ngëneel ak te tàbbiwoo ko bi nga daw doo xam kalay xala gën xam ka xala gën te tàbbiwoo ko bi wér loo jëf-jëfit bu ko naw ndegam dangaa jëfa-jëf yow mii ba naw la nga jëf seytaane jëf na lu kenn dul jëf te mujj na bew xam-xam bu rëy ak alal ak jaamu yàlla gu rëy ak jaglu ak siiwutur yi yépp taxti la raw xaaroona alkuna ak koomam mu rëy ma mu yor firawna alkuna ak mbooloo mu rëy ma ko aw te doonte ay koom ak mbooloo dafay tax a gën xaaroona gën ñëpp ak na yeewu la daw feejant bi fenke ak feye muy sooye tey boo saytu woon lépp itam dee nangu koo ti ci yow loo saytu yow mi la ak koo saytu dee dana ñëw bis nangu loolale ak kookee nga des na feraw te maa ngi lay bëgg a dénkub dénk dénk bu wér bul gis sa kem yi la lay neexal ba tax nga kejaw ñi lay dawal di la waxtaanal di sàkku sa mbég boo dee dañuy romb sa xabroo ko dox ci sa kaw ay dal na képp ku mbooloo wër di xool a ko wax ngir faw muy jëw koy jëwloo ko seeru ko jëw bul jóg di waxtaane bul jàmbat ku gëj fa sa kër kuy sooke jëw fu mu gëj lor gëj fa sante la yow koo xam ne mbooloo mi day waxtaane teggi la wéy saytaane teggi na lay wéy ab xajam du la baw na ngay rañaan ak xëy yow mii di gont ko daw ba tabbi daw si biir ak biti door a taxaw kon loolu yóbbal la boo xam ne sëriñ Bay Jaxate moo ñu ko jox liñ ci déggee itam mooy nit ay jëfam rek ku mën a wéttile euh, sëriñ Tuubaa am na bis mu laaj kenn ci ñu àndoon ak moom ne ko euh, ndax xam nga misaal moom yi ñuy faral di joxe ci ñetti xarit yi mu ne ko waaw mu ne ko nettali ko ma dégg mu ne ko kii de dafa amoon ñetti xarit ba jàpp na ñoom ñett ñëpp ay xaritam lañuy wér waaye bis yàlla nattu ko mu def musiba moo xam ne nii lu nekk mën na ko ci fekk maanaam mu rey nit daal dem ci bu njëkk bi ne ko man de damaa rey nit fëgg ko ko damaa rey nit mu ne ko rey nit mu ne ko waaw mu ne ko génnal sama kër man kat ba may ànd ak yow dañoo àndoon rek ci jàmm akuk dal waaye nag rey nit taxutoon boo nekkee ci musiba daal boo yowoo nga seet foo ko lijjantee ji mu daal di génn dem ci ñaareelu xarit ba fëgg ku ne ko man de damaa rëy nit mu ne ko rëy nit mu ne ko waaw mu ne ko ah def nga lu rëy de lenn de laa la mënal gungi la ba ca buntu dëkk ba ma teg la ci yoon wa ne la dawal bala laa jàpp nee na mu dem ci ñetteelu xarit bi ba fëgg ne ko man de damaa rëy nit mu ne ko rëy nit mu ne ko waaw mu ne ko ah loolu de moo moo taxoon ñuy ànd bu neexee ñu ànd bu naqaree it ñu ànd kon nag maag yow duñ tàggoo lépp loola ci dal daal na nga xam dana ma dalaale sëriñ Tuubaa daal koy firil nag ne ko xarit bu njëkk bi mooy àdduna ak alal nee na nit ki bu demee ba àddunaam toll ci jeex ba mu tawat tawati dee àdduna ak alal dañ koy wan gannaaw nee na bu demee ba génn àdduna nag ba dee nit ña muy bokk ya moom danañ ko gunge ba ca buntu dëkk ba mooy danañ ko yóbbu ba ca bàmmeel ba ñu suul ko waaye nag foofu la ñuy yem de dañ koy wan gannaaw daal di dellu ca kër ya dellu ci dund gañ daan dund ca bis ba sax dangay ngay daal di gis ñu daal di tàmbali euh, bëril seeni xéewal lool te loolu lépp ci ñoom la jëm ñetteelu xarit bi nag mooy ay jëfam nit ki kon na wettile ko ay jëfam kenn ku nekk say jëf moo lay jariñ àdduna moo lay jariñ tamit alaaxira kon yeete yi nga xam ne nii sëriñ bu mag bi yee nañu ci ba tàyyi mag ñu baax ñu itam yee ñu ci bataay yi rikk waay nañu wàññandiku nelaw yi te yeew nag te seet fi ñuy teg suñu tànk teg ko ci saraatal mustaqim yàlla na suñu borom defal dégg ak topp defal ñu tawfiq defal ñu ay def ñu ay murid saadiq yoo xam ne nii eh, leer gi nga xam ne ni moom la sëñ Tuubaa nit ne jaar leen ci yàlla nañ ca jaar ndax ñu raw mucc àdduna ak alaaxira ñoo ngi soññaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir